salaamaaleykum gars yi nii naa leen daleen ak jaamu ci Sen Sport 221 transfert ñu koy doree ak mbirum Ousmane Dembélé bi nga xam ne ñii di Paris Saint-Germain ñoo ngi ci kawam bu baax ci jamono bi waaye nag ñu fàttali leen li nga xamante ni moo aju ci 50 millions d'euros yooyu nga xam ne jamono bi Paris Saint-Germain pare na ngir fay ko te mooy clause libératoire bu Ousmane Dembélé bu ne ñii di Barça wala Ousmane Dembélé accepté na ngir dem foofule su boobaa nañu jàpp ne 25 millions d'euros képp la ci Barça am ndax kat li nga xamante ni mooy yeneen 25 yi kii di Ousmane Dembélé ak agent ñoo koy moom ndax loolu moo bokk ci li nga xamante ni voilà mooy accord yi doxoon diggante Dembélé ak kii di Barcelone niki ni ki daaw balaa muy signé li nga contrat bu bi kon 50 millions d'euros yooyu nañu koy dégg rek donte ne ñenn ñi ñoo ngi koy xeeb ci Dembélé waaye Barça 25 képp la ci am bu fekkente ne transfert bi jàll na loolu nag ñetti fan la wala fileeg ñaari fan ndax 31 juillet la 50 millions yi am yem maanaam foofu la yem bu fekkente ne euh, passé na foofu nañu jàpp ne 100 millions lay d'euros lay doon te su boobaa kon mbir mi dina gën a sakkan ci côté ñi di waa Barcelone mais jamono bi moom li l'équipe dal di leeral mooy vingt cinq képp la ci Barça dal di am bu fekkente ne Dembélé accepté na mbir yi dal di dem signé ca Paris Saint-Germain dinañ wey di topp mbir moomu le li nga xamante ne moo aju ci English Premier League bi ak coppite yi nga xamante ne ñoo ngi koy amal ba léegi bokk na ci joueur boo xamante ne dafa am blessure xam nga démb ñëwoon nañ ci heure bi nga xam ne gars yi dañu koy rey ci biir terrain bi voilà di rey temps ci biir euh, bu fekkente ne voilà match am na nga gagné nekk ci biir di tëdd wala ngay defi affaire su paree boobu yëpp dañu ko ciy tegaat waxoon dañu ko démb li nga xamante ni xëy na ñëwaat na ci mooy carton jaune bi nga xamante ne ñu ngi koy jagleel joueur bi nga xam ne dafa blessé nekk ci biir terrain bi voilà te ñu nga dañu ko wax ne daal na maanaam nañu koy jël yóbbu ko faj ko mu lànk ne di nga maam du dem faju ji wala mu génn terrain bi parce que mënatul jouer loolu yëpp mu koy def pour bëgg di rey temps ci biir terrain bi bépp joueur boo xamante ne yaa ngi def loolu voilà ay carton jaune mën na la ci fekk mën nañ la jox carton jaune ndax du ñu gis ne képp yow maanaam da nga nekk ci biir terrain bi di bi daal dinañ wax ne dañu la yóbbu la ci wàllu médical lànk léegi nag comme noonu la demee dañ lay jox carton maanaam loolu euh, avertissement lay doon pour joueur bi ba tey ci euh, mbir yooyu la ñuy wéy ci English Premier League bi Manchester City ñoom daal dinañu prolongé contrat kii di Nathan Ake Nathan Ake nag moom défenseur moom ancien joueur Chelsea yokk itam dañ koy yokk bu baax a baax moom kii di Nathan Ake kon kii di Pep Guardiola xëy na mu ngi gis boppam bu baax ci ki nga xamante mooy défenseur hollandais bile David Raya David Raya mooy gardien bu Brentford bi jamono bii ñi di waa Bayern Munich ñoo ko bëgg a signé Bayern Munich gannaaw bi nga xamante ya, ni xam ngeen depuis ya, daaw voilà kii di uh, Manuel noer dafa amoon jafe-jafe gannaaw gaañu gaañu bi mu amoon bi ñu jógee ci coupe du monde bi ba taxoon ñu signé kii di Yann Sommer dal di koy indi ñoom daal gisaguñu bu baax a baax seen bopp ci Yann Sommer ndax kat erreur yi nga xamante daf koy faral def xëy na bari na tar jamono bi gardien espagnol bi di David Raya nekk foofu la ci Brentford ku mën a jàpp la nag kii moom la Bayern uh, bëgg signé jamono bi buñ sukkandikoo ci kayiti xibaar bi di Sky média sport waaye Bayern na yemuñ ci loolu jamono bi ñu ngi ci négociation yi ba tey seen diggante ak Tottenham ci wàllum Harry Kane waaye Tottenham ñoom itam fi mu ne nii am na leneen lu ñu bëgg voilà mooy ñu jox leen ki nga xamante ni mooy di euh, Mathys Tel Mathys attaquant bi nga xamante ni di Bayern ñoo ko jëndoon ni ki daaw moom gone gile ca France mu ko gone go xarañ nag mën football lool Tottenham ñoom nee nañu daal li ñu bëgg mooy ñu jox leen kii di Mathys Tel maanaam ñu dugal ko ci deal bi gannaaw bi nga xam ne Bayern ñoom dañoo bëgg signé Harry Kane te ñu ci waxtaan kon ñoom Tottenham daal dinañu wax seen bëgg-bëgg ñi bëgg nañu lu yomb de gone gii daal Sénégal moom la ñu bëgg ñi di Bayern dal di koy dugal ci deal bi ngir ñu war leen mën a jox Tottenham am euh, moom nag dafay dem ca Argentine ci bi nga xam ne mooy Boca Junior foofu lay dem signé ji nee nañu boo xam dina ko yóbbu ba décembre 2024 loolu nag kon dafay nekk at ak genn wàll voilà loolu la kii di xibaar bi biral loolu nag nee moom nag free agent la ndax kat jamono bi dafa dal di foofu la ca France contrat ba jeex na kon dafa war a dem signé ca Boca Junior junior nekk ca Argentine moom kii di Edinson Cavani Chelsea football club dañoo dal di rejeté offre ñi di waa Juventus bi nga xamante ne defoon nañ ko pour kii di lu Lukaku ñoom li ñu bëggoon ñoom waa Juve mooy ñu abal leen ko maanaam loan deal la bëgg loon waaye nag ñii di Chelsea ñoom dañoo lànk ne nañu ñoom waxuñu waxi ab la ñoom jaay la ñuy wax jaay bu fekkente ne daal bëgg nañu nañu indi xaalis ñu jaay leen Romelu Lukaku coow li jeex tàkk mais waxi Appelé moom bu ñu ko wax Inter nag ñoom rocc nañ seen loxo ba set picc ci coowal Lukaku ndax kat li nga xamante ni moo ay ci transfert nañoo jàpp ne na dafa préféré euh, a teg loxo ci kii di Lukaku du ko Appelé mais da jaay ndax Juve dinañu def pexe ngir jënd ko gannaaw bi nga xamee ne ñoom Serie A képp la ñuy daanaka wala coupe ndax duñu génn Italie dañ leen génne ci li nga xamante compétition européen UEFA ñoo def loolu ndax ñoom dina leen jaral ñu signé attaquant bu am doole ni Lukaku am déet loolu yépp amaana dinañ ci dellusi tout sport dalam moom moo biral xibaar bi la Chelsea na nañu xaalis kep na ñëw ñu jaaye ko sino wala Lukaku demul fenn Marquinhos moom mooy capitaine Paris Saint-Germain bi itam di Al Nassr dañu ko bëgg te moom kii di Marquinhos accepté na ngir amal li nga xamante ne mooy négociation digganteem di euh, Al Nassr voilà Marquinhos nee na moom pare na ngir waxtaan ak ñum Al Nassr bu ñu ko bëggee ngir mu daal di dem signé ji foofu le mooy club Cristiano Ronaldo bi nga xam jamono bi ñoo war a signé Sadio Mané léegi nag ñu gis ne kii di bu fekkente ne dem na du wàññi Paris Saint-Germain dara ndax kat Paris bu ñeen fàttale ko fan yi signé na ñaari défenseur central ku ci mel ni euh, Lucas Hernandez moom ñëw na jóge ca Bayern waaye itam ki nga xamante ni mooy Skriniar jóge ci Inter de Milan ñaari joor lañu yoo xamante ne ay défenseurs yu xarañ lañu yu am doole lañu te it ñoo ko gën a nekk xale du ñàkk lii moo tax moom Marquinhos xam boppam ne dafa bëgg a dem voilà waaye daal ubbi yi ngir négocier ak ñii di euh, li nga xamante ne mooy boobu kon loolu amaan dañ ci dellusiwaat Fred moom jour Manchester United la moom jamono bi ñi di Galatasaray ñu ngi ci waxtaane bu baax a baax seen diggante ak Manchester United ngir signé ko te jàpp nañu ne fileeki fan dinañu gis moom Fred dal di signé foofule ci Turquie mbir moom it amaana bu amee leen lu ci bes dañ ci dellusiwaat tënkaloon ci xibaar gay continuer leen di suivre Sen Sport the best sport news channel